auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaan ci sunu site bi ñuy wax 24 actu ci seen émission bi ñuy wax taxaw lu ñu dellu siwaat ci jataay bi nin ko baaxoo def waaye balaa boobu ñu ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko eh, ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp mu defee ko na ko soobee di ñaanal a siyaare alhaaji Abdul Fatah Mbàkke moom sëriñ Fàllilu di fan lu gudd ak wér ak ngërëmal sëriñ Fàllilu di ñaanal bu baax sëriñ Daam Atta Mbàkke xalifa si Ibrahima yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéenam ci liggéeyal sëriñ Touba lépp mu defe ko nam ko soobe mbokk yi tey kàddu yi du bari du gudd lool ndax tey dañoo bëgg a def benn taxaw seetlu ci dëkk bi fii di Touba di dëkk bu sell bi rawatina ñu jëmale ko ci chef de village yi ak ñi nga xam ne ñoo di délégué de quartier yi du ngeen fàtte mukk ci ginnaaw fan yee sëriñ Basiru Mbàkke mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ xalifa général de Mouride woowoon na fi chef de village yi ñu amoon ndaje moo xamante ni ñun ndaje ma lan ci jàngate ak lan ca déggee rek mooy dégg na bi nu waxee ñu ne képp koo xam chef de village nga koñ ba nga nekk na nga fexe ba lépp loo xamante ni lu lëj la fa wala lu fa jaarut yoon yow mi nga xam ne yow lañ ko dénk nga fexe ba lijjanti ko boo demee ba loolu tëla nga dem ci maire ba bu demee ba maire bi loolu tëkku mu ñëw ci sëriñ basiru Mbacke Abdou Khadir waaye li ñu seetlu ci chef de village yi ak chef de quartier yi mooy benn mooy chef de quartier yi ci bari am na ci ñoo xamante ni lu mat daanaka vingt quartier wala vingt cinq wala trent cinq quartier jiite nañ ko ñoom nga xam ne lan fa tegaat ñoom ay délégué la quartier lan fa tegaat ñooñ ñoo leen di rencontre ba ca njëkk demaat mooy chef de quartier bi fi mu nekk sax du bokk ci quartier bu mu ilif fi mu dëkkee bokkul ci quartier bu mu loolu kenn xamul nu mu ci quartier bi kon kooku xamul lu muy lijjanti ci quartier ba lu dul luñ ko fa nettali nettali nag ñaare kan ko kam fa teg mu nekkal ko fa ak ka fa nekkal boppam dëkk fa ñoom ñaar bu ñuy layoo ci wetam wala ñu dikk di ko wax yët ay wax wax jooja la muy gën a séentu ay waxam ju gën a wér ak gën koo jàpp mooy ko ko nekkal ci quartier ba kon loolu rek da yëg ne ak ab ab diggante la boo xamante ni bu xaw a naqaree lijjanti la benn bi ci des ñoom seef de quartier yooyu liñ leen wax liñ leen dénk du suuf si rek lañ leen dénk du suuf si jaay suuf si ja koy jaay kër wala kër yu nu dagg ñu leen koy joxeloo di leen ko mayeloo di leen ko joxe gratuit ñu koy jaay ak di lool loolu taxut ñu teg leen fa waaye dañ leen a contrôlé loo koñ bi sécurité koñ bi mu ngi ci seen loxo li ëpp la ca njiitu mooy képp koo xamante ni dëkk nga ci koñ bi te nu gis la lu yelloowut ak dëkk bi nga ko fay def kooku chef de quartier bi moo ci war a jéem kémtulaayal kàttan bu demee bu mënu ci dara mu yóbbu ko ca maire ba bu ca maire bi mënul dara ñu soog koo indi ci sëriñ bi waaye nañuy def bay lijjanti suuf sa ba sëriñ bi du ko yëg wala lëj-lëj yoo ca am yépp loola ñu mën koo lijjanti ak la ci seen intérêt ñu jël ko na lan waroon a jël intérêt boo xamante ni ñoom danoo war a nekk ci biti nit ñi di nekk ci biir Eh, di seelu ñoom ñu nekk ci biti di eh, di di di taw taw bi di dal ci seen kaw li ma bëgg a wax mooy lépp lu metti dafa war a ci ñoom la war a tàmbalee bu nu seetloo rek fan yi ci chef de village yi ak chef de quartier yi li leen joxoon ceeb bi chef de village yu bare bare rus nañ ci ndax parce que nañ ko doon séddalee jaaduwul jaaduwul ñu war a am ñu xañ leen ñu wërta am ñu jox leen ñoom ci seen bopp boo seetlu woon chef de village bi daanaka am na ci ñoo xam ne yeyoowuñ ko waruñu ci wan am te boo demoon seen i kër ak seeni i magasin ma nga ne fees na du loolu jàpp naa ne askan wi xamal nañ ko seen bopp mu leer nañ du ma ne ñëpp la nag loolu du ma ne ñëpp la waaye damaa wax ci ñenn ñi des ngeen fii ba tàyyi ñu ne am na ñoo xamante nii nee nañ seen ceeb pour ñu indil leen ko 2000 francs la ñuy joxe te loolu ku nekk xam na ne bokkul woon ci mbir yi même bu ci bokkoon ni tamit ku ci nekk xam na ne loolu ëpp na bi ñu ko totaalee loolu xaalis bu baree baree bari la kon chef de village yi liñ leen di jox ngir ñu àgg ci askan wi dafa mel ni lu bari àggul li ma bëgg a wax nag bëggumaa wax ñëpp li tax ñoom ñu woo leen fii ñoom bu yàggul sëriñ Basiiru woo leen ne leen dañuy lëjal loola ku dox ci nit ñi gis ne ñaari minute wala fan yoo dégg quartier boo dégg yaa ngi dégg ay coow di fa am la fa njëkk dégg di nga dégg ñu fa jubari ñu fa nekk ñoo xam waa chef de quartier ba xam nañ leen du leen signalé benn ba ca desaat di nga gis ne dénkunu leen suuf si dong waaye dañ leen dénkaale nit ñi ngir ñu nekk ci yoon wu jub nekk ci lu kii gis ngeen barki démboo njaay rayante bi fi am te ci dëkk bi lay doon quartier bu ci nekk rek daanaka ci dëkk bi lay doon dëgg la ka toog nekk ci wetam di xeex wala jikki-jikki dal ci loo xamante ni lu kii la ko mënaloo ko dara waaye lañ fay def lu neexul dëkk bi te nga xam ko yow mënoo nekk ci koñ bi di contrôler koñ bi nekk chef de quartier bi lafay fay yendu ak lafay fanaan xamoo ci dara loolu day wane ne rek itti woo ko te benn reserve fu mu nekk xam nga ko benn pàkk boo xamante ni borom gëj naa ñëw nga bëgg koo lëjal xam nga ko ku ci nekk gis nañ ne benn pàkk dinañ ko jaay lu mat fukki nit yoo xamante ni ku ci nekk ñu defaral la sa këyit wane ngàddu sa këyit ndax këyit goo xam ne da ngay dem rek photocopie yaay dem ci imprimerie bi yaay def nangam yaay cay def say numéro yaay def lépp loolu ku nekk xam na ni jaaduwul. te nit ñi dañ leen a war a taxawu ci seen ak dund ngir ñu dund dund gu sérieux ak dund gu yéwén dund koo xam boo demoon fii ci dëkk bi foofi mën a dem koñ yi ñeenti xibli yépp da gis ne réservé yi fa amoon yu ci bari chef de quartier yi dagg nan ko wala joxe nan ko te loolu war nañ cee rus ku mel ni Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne ku xamoon suuf la xamoon nin koy joxeek nin koy dëkki ak ni suuf di màggee ak suuf ni ko nit ñi di soxlaa ba tax na koñ yu ci nekk bàyyi woon na fay resare bàyyi fa kër Serigne Touba am na ci yoo xam ne kër Serigne sax yi nga xam ne defaruñ koon sax dagg naan ko ba far partagé ko ñi ay nit séddoo ko te en tant que kër goo xam ne woon kër Serigne Touba la ñu dem ba mën koo dagg séddale ko loolu doyut nga gis ay nit ñoo xamante ni ay mbedd boo awoon rawatina fii ci Sine waaye xaw ma chef de bu fi nekk waaye. wala chef de quartier bu fi nekkee waaye boo demoon mbedd ya fa am da ngay yëg ne mbedd yi am na ci mbedd yoo xam fàtt nañ leen fàtt nañ leen wala dagg nañ leen ba jaay leen ci sinuwaay yi te ku fa dem def contrôler xool mbedd yi ni mu bindoo di nga xam ne mbedd mii dañ koo dagg te kenn dagg kooku mooy chef de village ya fa nekk kon loolu alerte la boo xamante ni war nañ koo xam bokk na ci réserve yi nga xam ne amoon na fa réserve bu ñu nekk dagg nañ ko ba partagé ko ba séddale ko te dëkk dafay noyyi ni nit di noyee ni la dëkk di noyee kon loolu li taxoon sëñ yu bàyyi ko fa ak kër sëñ Touba ak nangam loolu kenn xamut boo demee barki démb rek ñu ngi may nettali ñaari chef du village boo xam chef de quartier ak délégué ay pàkk jàmbur yu ñu la jël ba àgg ca kilifa ko ko doon lijjën ñoom ñëpp ku ca nekk toog nga di jooy di ngooñ ngir xam ne yaa def loo xamante ni lu jël la yu mel noonu nag li muy indi day indi ay rewalte ci biir nit ñi te loolu baaxul nit ki àqam nga jël ko ngir ci néew doole wala dara te li nga ciy seetlu ci ñoom pàkk buñ la jox boo fa toogee ay at ñëwoo wala sa pàq la wala nga def ci dara wala ñu seet na ku néew dooleel gis ku ku am xaalis ku ko soxla ñu jaay ko wala boo dikkee lan lay wax nan lay wax ne la dangaa jaawale bi nu la joxoon bokkut ak bii bële lan la joxoon kayit gaa ngi nii numéro baa ngi nii nangam nangam nit kay boo ko joxee pàkk joxaale ko numéro kiyam numéro mu xam ne numéro bi nga ko jox mooy numéro nangam ëllëg sibur lu fa mën a am waaye loola lépp ànd ak loola li ci gën a yéeme sax am na ci ñoo xam moom mënuñoo bind waxuma la numéro kër waaye numéro téléphone sax mënuñu ko bind numéro téléphone am ñoo xam seen jabar la ñuy jël am ñoo xam seen i doom am na loolu xañ na lu nuy kii la waaye chef de quartier bi lu mu nilaar ne wala lu mu na jéggal ma lu mu ñàkk-ñàkk jàng war naa mën a am lu mën a bind war naa mën a bind ci araab wala mu mën a bind ci wolofal wala mu mën a bind ci français wala dara waaye koo xam mënoo bind benn araf kooku lu nekk mën naa lëcc say loxo lu nekk mën naa lëcc say loxo lu nekk mën naa la ci seelo loolu nag li koy jur mooy nanu xam ne dëkk bi participation yu bari daf leen cee war gis nga ndox yi manqué ci koñ yi gisoo benn kii boo xamante ni participé na ci wala mu nangam te ñoom ñoo ñu waroon nañu organiser Touba ci kanam yi nga xam ne mooy tonn ci ndox mi ak ñin jox ndox mi ñu fexe ba ku ci nekk lañuy def bay jël santaas bi am ci pàkk bi wala ku jaay pàkk wala pàkk bu nu jaay jël santaas ba santaas boobu waroon nañ koy jël di ko dugalaat ci biir li nga xam ne mooy ndoxu aynu wala mooy li nga xam ne moom la nit ñi soxla di ci dund waaye loolu heureusement amul li am mooy ñoom ñëpp nañ xam ne li war a njëkk ci ñoom mooy ragal yàlla ndax sëriñ bi da leen a doyloo sëriñ bi mënut fu nekk mu nekk fa ngir di man di contrôler waaye mu jël leen doy leen te ñoom du judd moo tax ñu jox leen ko du askan moo tax ñu jox leen ko du tax njàng moo tax mu jox leen dañ leen a doyloo rek wala am ñu leen doyloo ñu doyloo leen léegi ñan cay doyloo nan xam ne ay responsabilité seen dund gi day jeex seen dund gi suuf si fi lañ koy bàyyee quartier bi fi lañ koy bàyyee seen dund gi day jeex mën naa am sax balaa nu ko fee bàyyee sax màggatu ba mënatul dara kon nan jël kenn ñu teg ko ci seen kanam koo xam moo leen fi njëkk te moo ko jiite woon te kenn ba léegi kenn mënu ko fee waxal dara muy sëñ Mewdu Jaxate sëñ Mewdu ku nekk xam na ni fii la nekkoon waaye ba léegi histoire a ngi nettali kan mooy sëñ Mewdu histoire nga ni jàngal kan mooy sëñ Maodo amul benn restaurant boo mën na sëñ Maodo moo ko jaay wala nga ne pàkk yi moo ko lëjal wala li moo ko def wala dara amul amul nekk na fi liggéeyal sëñ tubaab ba jóge fi ba sëñ Saaliw daf ko daan tudde magam dëkk bi magam dëkk bi li tekk mu nekkoon magam dëkk bi du magoon ci at waaye dafa magoon ci maanaa dafa magoon ci jub dëkk bi soxla woon ko fekk na sëriñ bi am na ñu bari ñoo xamante ni yu mel noonu daf koy teg ci seen loxo li nga xam ne wàllu lijjanti la ay kayit ak lijjanti nangam loola nag li muy indi mooy waxtu wu nekk kon xam nañ ne toujours ay coow a ngi am am na ci ñoo xam li ciy coow am seeni koñ kenn kenn xamul am na këri jàmbur yu nu yoo xam néew doole tëj nañ leen ci am na ci ñoo xam ne seen pàkk jël nañ ko am na ci kilifa yoo xam ne sax jël nañ seeni barab ndax la ko waral mooy ñoom ñoo nekk ci barab yi guddi ak bëccëg dañ leen fee teg nang sëriñ bee leen fi teg moo leen di contrôler waaye askan wi la ñuy jëfandikoo lool askan wi nag bu nu jàpp ne ñàkk wax wala ñàkk kii moo tax xamuñu li nekk ci mbir yi xam nañ ko bu baax a baax a baax xam nañ ko bu baax a baax a xam googu ñu ko xam nag sëriñ bi wax ko nag ñoom li war a doon seen responsabilité mooy lépp lu xew ci koñ bi ñu taxaw ànd ko waa koñ bi amee ngénte ñu ànd ak moom mu amee dëj ñu ànd ak moom bu naqar amee ñu am ko lu fay def nag lu jaaduwul ndax ñoom ñoo yore nit ñi ñoom war nañ sax balaa nit jóge fii di dem pëlis ñu ñëw ci quartier bi borom quartier bi lijjanti mënu ko bay seen yéewandoo mënta nekk ñu soog leen yóbbu ca ka nga xam ne moo di yoon te balaa yoon a am sax ci loolu war nañu waxtaan ak sëriñ bi xam ne ay taalibe yu fi dëkk la yu diggante am seen dëkk bu dee diggante ci wàllu suuf la ñu lijjanti ko bu dee diggante ci wàllu euh, ñàkk mën a yaatoonte ñàkk mën a diggante loolu ñu yaatoonte mbedd yi tamit ñu xool ne mbedd yi ñoom am na responsabilité bu rëy ndax nit ñëpp dañoo maase ci ne mbedd mi mbeddam buur la ku bëgg a tuur tuur kii nga xam ne ku bëgg a sëkk sa kër mu tiim kër jàmbur ndox ma di wal di dem loolu lépp ñoom ñoo yore réglementaire bi ñoo ko war a coordonné ngir nit ñi mën a dëkk ci dëkkin yi woo xam ne waaye nag li am léegi mooy koñ boo ci dem fekk nga ñu occupé yoo xamante ni nit ñi dañ ko doon soxla ginnaaw Touba moom soxlawut fubalukaay soxlawut fu muy sport soxlawut fu muy kii lu mu soxle mooy daaree alxuraan ak marché léegi fi ñu toll marché yooyu yëpp ak ay yoon yooyu yëpp ñoo war a nekk kàddu nit ñi wane ne saa bu wax jotee wala jooytu fan war a jooytu ñu xamal ne fu mel ni béréb sàngam soxla na yoon fu mel ni béréb sàngam soxla na marché fu mel ni béréb sàngam soxla na dispensaire loolu mooy chef de nga fas yéene mu ñëw sa koñ waaye lépp lu waa koñ bi yor yi nga kii boo demee rek li ngay xam ne dund yi wuute na rek mooy waa ji fi mu dëkkee ni mu dëkkee rek moom seef de village bi ak chef de quartier bi rek ci ngay xamee ne kii yëgul soxna koñ bi nit ñi ñu ngi dund dund ci ay jafe rawatina bi ma waxoon léegi ci ceeb bi ceeb bi jàpp naa ne ëllëg yomal xiyaam waxuma yomal xiyaam sax waaye nit ñi ku ci nekk da wéetaat ci sa bàmmeel yéeg ne ni nga ko doon séddalee jaaruwul te loolu lépp dañ la koy laaj kon nit ñi nanu delluwaat xam ne chef de village yi dañ leen a joxoon quartier bi délégué quartier yi dañ leen a jox quartier yi képp koo xamante ni responsabilité bi attanoo ko mënu koo yor delloowaat ko ci ña ko mën a yor nga jox leen ay xale yu ndaw yu la gën a jàng nga fa ay xale yu la gën a juba nga fa ay nangam te say doom lan nga ne man kat lii ngeen ma fal wala lii ngeen ma jox xam naa ne dëgg la da ngeen ma koo jox ngir bëgg ma liggéeyal askan wi waaye sama doom ji moo ma ko gën a man ndax jàng na sama jarbaat bi moo ma ko gën a man waaye ànd ak loole lépp bis bu nekk nga dégg coow tey li am ci ay lëj-lëj ci wàllu suuf fii te suuf ku ne xam na ne àdduna bépp ñu ngi ciy coow àdduna bépp mooy problème bi gën a rëy waaye nag mënoon naa demee fu nekk ba mu des Touba ndax Touba jaayunu fi kenn pàkk natt borne ba mu àgg ñu ne la jëlal fii loola nag mi ngi ajuwaat ci responsabilité sëriñ bi jeex na ci tàkk waaye responsabilité ña koy distribuer muy chef de village bi ak chef de yi léegi la ñuy def bu nattoon fii junniy kër junniy kër yi juróomi téeméeri kër yi gën a jege fii yépp duñ ko jox ñiy dëkk ñuy dëkk ca ginnaaw lañ leen di jox ñi ñuy jaay ñuy jaay par benn benn wala ñuy seet borom xaalis ñu jox ko ki bëgg a dëkk moom dem ca àll ba ndox amu fa courant amu fa yoon amu fa nga bàyyi ko fii diggante bii lu nekk mën na fee nekk ngir nangam boo demoon tey lii am ci tabax yu eggul kenn xamul nu mu toll te loolu lépp mi nga ajuwaat ci chef de village yi loola nag kenn du ci wax kenn dara lu dul ñoom lan ci waxaat li ci am solo nag mooy ñu xam ne dañ leen a liggéeyloo te liggéey bi day jeex seen dund gi day jeex liggéey bi jeex kon nag nan bàyyi xel bu baax te delloowaat seen xel ci sëñ Maodo mi nga xam ne moom mooy kii bi loola nag jàpp naa ne ñoom ñëpp ku ci nekk war ngaa seet ne dëkk bi pour mu avancer ci la muy mooy chef de quartier bu ci nekk jël ne lan la jox danga ko koo waaye lan la jox tamit da ngaa yëg ne ak ragal yàlla jiitu na ci waaye bu ragal yàlla jiituwut ci loolu mënoo ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne daal li nu bëggoon a wax ci résumé ko mu gàtt mooy bëggoon noonu wax chef du village yi ni ñuy laaj lempo yi di ko laaj patant yi di ko laaj nangam loolu lan war a toppatoo kaaraange nit ñi ba képp koo xam yaa ngi jaay dorog wala yaa ngi jaay sàngara wala yaa ngi jaay nangam wala yaa ngi def nangam wala yaa ngi tëgg wala yaa ngi fecc wala yaa ngi def lu méngoo wut ak dëkk bi ñoom ñu signalé la ku ci nekk am na loo man li addis bi wax ne man raxaa min ku mun karan fal yu xëyri biir ki mën a dindee loxo na ko dindee ki mën a dindee làmmañ dindee ki nga xam ne mënta dindee làmmañ xolam la mën a dindee mu dindee ko kon nag bu boobaa ku nekk sa jaan day wàcc waaye ki mën a dindee loxo bu dindee làmmiñ duñ ko nangu ki mën a dindee waxi tamit bu dindee xolom duñ ko nangu kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen jox daje wasalaamaaleykum wa rahmatullah